del déglu del xool Feeling Dakar. la famille on est bien arrivé à Dakar alhamdulilah on est là avec le président di photo ak waa aéroport beeg personnel beeg président waaw. yes agsi nañ ci jàmm. ci jàmm waaw. donc euh, alhamdulilah sant yàlla tey bi bu baax waaw une belle journée. voilà vraiment vraiment Bignona a été kontaan nañu Sénégal Casamance yéen it waaw vraiment le monde la capital du Sénégal. macha allah donc yéen ñëpp ni ngeen ko gisee voilà. waxtaan yi neex na discours yi neex na. macha allah kontaan nañu. ñu ngi nuyu ñëpp nag sëñ bi aywa. man tey Bignona moo ay woon en tout cas ñu ngi remercier ñëpp. surtout que waa MDD nga xamante ni ñoo organisé woon di la faral di wax rek en tout cas le président Ousmane mm-hmm. mi nga xamante yàlla moo ñu boole. Mm-hmm. ci dëgg ak jub ak jubal. Mm-hmm. muy sama collègue ensemble fa nekk sama xarit. kenn ku nekk mu amee jàmm tey mën naa ni Sénégal moo ànd ak Ousmane Sonko dem. Casamance. li may faral di wax rek ni man nga rey bakkan doomu aadama mais mënoo rey xolu doomu aadama te loolu mooy li si am solo doomu aadama mën nga ko tere mu gën réew mi mais mënoo ko tere maanaam nit ñi bëgg ko nit ñi bëgg tey ji ni ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoo réew mi bu ñu génnoon ci réew mi réew mi jeex Sénégal jeex dëgg la dëgg la kon yaakaar naa loolu nga xamante ni moom lañ doon wax naan tere na ko mu génn réew mi mhm. tey ànd nag ñoo xamante ni tey jii ñooy waa réew mi dem ànd ak moom pour mhm. dem fi ñu bëgg a def mhm. kon am na yoo xamante il faut que ñu arrêté ko Sénégal ñoo ko bokk mi ngi nii jàmm rek lay am jàmm la ñu ko yéenee réclamé naa ko si Ahmadou Bamba. Mhm. dara bu ko dal. ndax yaakaaru ndaw yi la. Mhm. fii ba 2024. Mhm. ñu ñëpp ñu àggal allah waaw ma euh, li honorable wax nag. daanaka jarul teg dara. alhamdulilahi rabil alamin dem nañu Ziguinchor dem Bignona def li ñu war a def mu di cérémonie bu ñu am yaakaar cérémonie bu macha allah bien organisé wax nañ fa wax ju am solo ñaanal nañu martyr yi dellu si nañu ci jàmm fii ci Dakar Ousmane Sonko ngi ni taxaw gis ngeen image yi à na ñu bëgg rassurer tout le peuple sénégalais gis nañu ni fii ci biir réew mi ak bitim réew ñëpp seetaan nañu ko alhamdulillah malaise bu passager ndax tàngoor bi ñun ñëpp bi imam bi bi ñuy jàng alxuraan ku ci ne ci ñun sa xol tooy na ñun ñu bare bare ku ci ne tuur nga rangooñ mm-hmm, mm-hmm. ndax lu rëy la man su dee si la ma fàttali loolu bi bi ma si mm. sa xol moom sama xol dafa foofu noonu macha allah tey jii maanaam imam bi nga xamoon ne tey bi ñaan yi mu doon ñaan ñi fi jógee moo ma dellu waat moo dellu si ñëpp seen tooy waaw ak bi dafa leer sax xam nga démb ñu ngi wax batalu Joola mhm. mu doon tiis boo xam ne mënut a denc ci xol yi ba léegi mhm. barki démb li am nu mhm. ñëw mbooloo ma fa tey kenn xamul seen li mu macha allah way xale yi nga xam ñoom la ñu boom toog ñu bokk ñoom ziyaare bi jàng alxuraan jàng xablu bi xol yi tooy xëpp macha allah jamono yonent bi sax lu nu mel daloon na leen waaye ñu xam ni yàlla moo leen teg natt bi ñu dund ko. moo tax sëñ Moussa Ka ca ba ma ngi koy wax. yàlla balaa laa wóolu ba jox li mbir yi. métti nga atténué bi maa ngi jaar ci jéego gàllankoor. macha allah macha allah xoolal xeeru lan bi yaa bi mu laa tuddoon aw la. on le lu nekk muy dégg. mais ni. bu lekkee olom na ko gërëma coot. bu mbooloo mi yëpp. ni ñuy wute yëpp àndee doon benn dem ci béréb bi xool yi doon benn yéen yi doon benn pas-pas bi doon benn te lépp ñu wàkkilu ci yàlla nañ ko sant M2D sant ko Ousmane Sonko yàlla na fi sox mu jiite mbooloo mi liggéeyaat réew bi tabaxaat jikko yi defaraat jikko loolu lu mën a nekk la yàlla mën na ko def amiin soxla yaa rek mooy Sénégal ah, <laughs> waaw deux mots rek waaw deux mots rek nuyu nit ñi wax na ni dellu si ak impression wu journée bi quoi. ah dellu si nañu Dakar. Mhm. macha mhm. euh, wax dëgg yàlla wan nañu Sénégal ni ko lii mooy mhm. njiit. wan nañu Sénégal ni ko. lii mooy fayda. wan nañu Sénégal ni ko. xawlu yërmande fi la nekk. ku ñu gis tey. suñu ànd bii. suñu ndaje bii. la ko tam la ci jàng alxuraan yi te leader yi ku ci nekk li nga wax rek mu nekk wax ji mujj ayib ñu xam ne ànd bii ci m mooy tontu senegal tiis si mu nekk mooy tontu Sénégal ñàkk démocratie gi ñu nekk mooy tontu Sénégal gi nga xam ni bu ñu leader yi àndee nekk benn say taxaw dinañ soppi réew mi dinañ jànkonteeg ñi fi nekk nag wan leen ni leen lu leen Sénégal jaral nag jaral nañu lu ko raw ndax xale yi daanu du ñu gën a gore te loolu la ñu wane tey ci ñaan yi loolu la ñu wane tey ci taxawaay bi loolu lañ Ousmane wane tey ci émotion bi émotion bi daf ko jàpp ndax dafa am xol dafa am yërmande dafa xam luy bakkan waaye nag nekk njiit rek gur ay lex di ci ay soxor kooku di njiit nit day am yërmande nit day nekk jaboot nit dafay xool ni xale bi daanu mën na nekk sama doom mhm. nga jàppe ko foofu tekkee loolu la wone ñu koy ñaanal yàlla ci barke nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yàlla suñu ànd bi yàgg yàlla ñu yàlla dimbali yàlla ñu yàlla dafa cet yàlla ñu yàlla boole ñu nekk benn say xeex jële fi nekk fi nekk teg ko fi mu jiitu soppi Sénégal liggéey xale yi am liggéey dëkk bi naat ñun ñëpp ñu sabaru ci barke nabi Mustafa waaw ma kii la waxal gars yi nag ñu ñëw Serigne Serigne Ziguinchor bi ko ah Serigne Ziguinchor bi la ñuy séddale. yoxos bi. yoxos bi. waaw a ah, bi kan moo leen koy indi Serigne bi. yoxos bi waa MDD. bi. waaw ah. bi. Uh-huh. Ah. maam Diarra Fam gis nga bi maam Diarra Fam yéen waa Patel ak MDD beeg ñëpp nag sëriñ <laughs> bi leen sëriñ bi leen indil waaw waaw sëriñ bi sëriñ bi waaw gars yi daal ñëwuñu ak loxo neen quoi ah dañu ñëw sëriñ bi ah gis nga compte bi problème yi Casamance. am na jën am na gamba. gis ngeen gamba am na crevette séchée waaw ah. am na yoxo. macha allah moom maa tegaloon nii gis ngeen. yaa yaa indi waa Dakar sérité bi ak patriote yeeg waa PDS ñëpp. seen député bii nag bu leen jàpp ni assemblée rek la mën a de. Ah. jën yëpp la xam te jëndee nag Ziguinchor bàyyi wu fa jën. bàyyi wu fa jën macha allah lépp laa jënd. <laughs> président. pour finir daal ñu leen di rassurer bu baax di leen wax que ni seen message inquiétude yi ngeen doon def xam nañu mbëggeel la ak cofeel ak ñeewantal bi ngeen ñeewantu seen président ndax xam ni sonn na nag tax sa boobu ak mi ngi daw pour bëgg a satisfaire projet bi jaral na ko bakkanam jaral na ko guddeem ak jaral na ko énergie bi yëpp yéen ñëpp yéen a ngi naan na noppal da noppal li ngeen ci jublu rek mooy da ngeen koo bëgg da ngeen koo yërëm te da ngeen bëgg mu garder forme boobu noonu donc sentir nañ lépp sentir nañ émotion bi ngeen demee tey njàqare bi ngeen amoon ñu leen di rassuré que ni du woon dara émotion bi nag c'était vraiment intense loolu moo waral li am tey am mais sant nañu yàlla ñibbisi nañ ci jàmm on a passé une très belle journée de prière et kontaan nañ yëpp kontaan nañ président mu ngi nii mu ngi si jàmm mu ngi leen di nuyu donc yéen tamit nekk leen si jàmm macha allah alhamdulilah. jërëjëf voilà. merci yow it jàmbaar jàmbaar nga lool. mention spéciale à mention à la jeunesse sénégalaise. au patriote spéciale nee naa kii amul dara ci ndof nit du nit dof nit nit la. bàyyi dof nit nit <laughs> merci beaucoup merci président merci à vous la famille. nekk leen si jàmm yéen aussi. Uh-huh. mérite bi yëpp yéen la toute la jeunesse. Euh, xam leen que ni euh, le combat na fekk commencé. te incha allah rabi nañ ci am victoire victoire bu mag a mag ci am pour le peuple sénégalais pour l' avenir. et euh, voilà. del déglu del xool.